الله أكبر الله أكبر Thank you. سيدنا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الحمد لله العليم الحكيم رفع منزلة المعلمين والمتعلمين ونشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فهي مفتاح العلم وسبيل الفهم قال جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله أيها المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى في أول آية نزلت على قلب خاتم المرسلين وسيد المعلمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala muy aji xam lépp yàlla mu xarañ mi yàlla mi yëkkati darajay ñiy sàkku xam-xam ak ñi leen di jox xam-xam ñu ngi seede ni yàlla moomu amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te ñeelul ñu koy bokkaale ak kenn ñuy seede ne suñu sangu muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànne xam la yal na yàlla wàcce bàkk ci moom
moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam boo bis penc di taxaw mbokk yi ñu dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ndax lii di ragal yàlla mooy caabi ji tij ci sàkku xam-xam mooy it yoon bi nga xamante ni moo ñuy déggloo xam-xam yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ni wattaqullah na ngeen ma ragal ndax ragal gi ngeen may ragal mooy tax yuallimukumullah man yàlla may ki leen di jàngal mbokk yi ci yàlla dafa bokk ci aaya yi ñi ko wàcc ci alquranul karim muy aaya bi njëkk a wàcc ci suuratul alaq la fa borom bi subhanahu wa taala di digle mooy am njàng mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam iqra jàngal jàngal googu mbokk yi kenn ku nekk ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxoon nañ la baat boobu ne la nga nga jàngi aaya bi di am lu muy yëgle lu muy xamle ci air bu bees bi nga xamante ni moo war a ñëw ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko yàlla di yónni fekk na boobu lu bëri raaf na ci diine beneen air bi ñëwaat borom bi subhanahu wa taala lam ca yëgle mooy air la boo xamante ni la cay jiitu la koy samp lay tax mu suuxatu mooy sàkku xam-xam mu di loo xamee ni it faw kenn ku ci nekk ci mujtama bi ci société bi am wàll woo xamante ni yaa ko war a way bay ci waar bi taawunin kaafatin afraadil mujtama mu di masuuliya boo xamee ni mas masuuliya bu rëy la ci kenn ku nekk ca waar wa nga war a bay mu it mission bu diis ci kenn ku nekk muy ndono goo xamee ni it ci ki ko xam mooy li ñuy donn ci yonent yi alayhimu salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci xadis mu ni inna al ulama warathatul anbiya inna al anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrisu al ilm faman axada axada bi xaddin waafir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li ñuy doon noo ci yonent yi du ay matériel yu ñu bàyyil du alal buñ ñu bàyyil lim ñu bàyyil mooy xam-xam képp koo xamante ne nag sàkk nga ci xam-xam boobu loo ca gën a sàkku nee na yaa ci ëpp la cër ci la nga doon ci yonente yi alayhimu salaam kon wiraasa la bu ñuy donne ci yonente yi alayhimu salaam kii di nag kii jàngale muy ustaaz bi wala maître bi ku ci nekk am nga responsabilité ci ñi nga jàkkaar lool di leen jàngal ndax doomu aadama lañ la jox ki yàlla dénk kaw suuf am xelam lañ la jox ak it ruuxam xel mi nga jël responsabilité ni man jàngalekat laa kon am nga responsabilité ci nam mu am xelam orienté ko ci lu ko jëriñ waaye tabaxaat façonné waat ab ruuxam maintenir ko ci fitra bi nga xamante ni moom la ko yàlla bindee woon muy ak jub ba tax mu doon koo xamante ni it kuy jëriñ la ci société bi kii di jàngalekat bi ba tey mbokk yi dafa bokk ci masuuliya muy responsabilité bi nga xamante ni gàllu na ci kawam ginnaaw jàngale bu mu ko war a jàngal xamal ko lim ko war a xamal ci xam-xam bu koy jariñ ak it yar ko yar goo xamante ni ku ñuy ràññee la loolu bokk na ci li ñuy tabaxee ab société ba ëllëg mu nekk société boo xamante ni ca la muy rawee mooy ci xam-xam ci jub ak ci jubal loolu mooy li nga xamante ne mbokk yi mooy li borom bi subhanahu wa taala bëgg ci suufam si nga xamante ni lim ci bëgg mooy ñu defar ko ginnaaw bi ñu ci wàccee ci kaw suuf noonu la borom bi subhanahu wa taala waxee ni hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun mu ne ndax dina yem ki nga xamante ni dafa jàng ak ki nga xamante ni jàng ñenn ñu ñaar duñu mës a yem mukk kon ki nga xamante ni mooy ki ñuy considéré ci ñe ki ñi raw mooy ki nga xamante ni mooy sàkku xam-xam xam-xam yu gën nag ci li nga xamante ni mooy li ngay sàkku xam-xamu àdduna mën na laa jëriñ fii ci àdduna nga bokk ci ñuy jëriñ ci say compétence ci lu nekk ci luy jëriñ ci sa xam-xamu àdduna wante la lay jëriñ dëgg te mu nekk waajib yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ni talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor bu jigéen xam-xam boobu lam ca ne moom mooy xam-xamu diine bi lay won la ngay jaamoo sa borom subhanahu wa taala xam-xam boobu mooy li lay jëriñ fii waaye mooy li lay jëriñ fële nga jëm ci yawmal qiyaamati aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يقول جل وعلا في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يلا سبحانه وتعالى نينا من يالا دينا يكتي يكتي نيغا خامتيني dañoo gëm yàlla ba pare di sàkku di xam-xam la ma leen di yëkkati ci ñeneen ñi mooy ay daraja yoo xamante ni toobe la yàlla ñu yàlla boole si ñoom responsabilité bi ñu doon wax léegi ci ñi nga xamante ni mooy kiy jàngal xale bi mooy ni saay boo jàkkalee jàkkaarloog ñi ngay jàngal na sa xel dem ci aay bi borom subhanahu wa taala wax nii inna allaha ya'murukum an tuaddu al amanati ila ahliha kiñ la dénk am xelam lañ la jox ak ruuxam nga nekk ci jiitu ci moom xudwatul xasana ci moom royukaay kon fexeel ba la nga koy jox ci xam-xam mu doon lu koy jariñ lu ñuy waajal nga fexe yi ba na ngay mel ca kanamam nekk melukaan boo xamante ni bu la ko royee bu génnee mu doon ku ñuy naw ndax yow yaay royukaayam ki ngay jàngal muy xale bi boo ko xasee ba impressionné rek loo ko jàngal dina ko jël waaye du yem ci jël li nga koy jàngal donc da lay copier kon responsabilité ci yow mi nga xamante ni yaay kiy jàngale sa ni ngay soloo nga koy xool bu baax ci kanamu ñi ngay jàngal say kàddu nga xool ni nga koy woddee bu baax ci kanamu ki ngay jàngal sa xarakaat yëpp nga koy bàyyi xel ci ki nga xamante ni mooy ki ngay jàngal wante it masuuliye bi du yem ci ki koy jàngal dong waaye day delluwaat ci kër ga ndax yow mi joxe sa doom pour ñu jàngal ko yaa ko wax ni ko yaral ma te dañuy wax ki nga ni yaral ma sama doom da nga kaa wóolu sa alal moom mën nga ko may ku ko mën nga ko may ku la neex waaye ki ngay dénk ki nga wóoru rek lay doon ki nga wóoru ba dénk fa sa doom fexeel ba ki nga ko dénk la muy def ca moom la muy jëmbat ca moom ci xam-xam bu ñëwee na nga fexe ba topp fattal ko xam-xam bi nga koy jox wante li muy jëmbat ci moom ci ay jikko na nga fexe ba bu ñëwee na maître ba mel na nga fexe ba mel noonu ndax xale bi li muy roy roy roy jàngalekat bi ki mu njëkk a roy mooy ay waajuram lu ko jàngalekat bu mën a wax ci waxu yàlla waxu yonent bi wala ci savoir vivre xale bi du ko gaaw a mën a dégg lu dul dafa ñëw ba jàkkaarloo ay waajuram ñu koy pratiquer kon yow waajur bi nekkul da ngaa joxe sa doom mu dem jàng ji ndax responsabilité la ci yow nga yóbbu ko mu dem jàng ji xam-xam bu mu mën a doon nag responsabilité nga yóbbu xale mu dem jàng ji waaye ginnaaw bi nga ko yóbbee mu jàng ji na nga fexe ba jikko yi nga koy teg nga koy bàyyi xel ci kër gi nga xamante ni yéen ñaar yaa ko bokk nekk naka noonu it la ñuy waxee ci responsabilité yi ki nga xamante ne mooy xale bi jàng mu xam ni chaque jour bu yàlla def taw fiixu mu yeewu war a dëgmal ci jàngukaay ba école ba wala daara ja na xam ni am na chance bu rëy bu ko yàlla may ci bis boobu ci mu war a jëli ji lépp lu ko jàngalekat bi jox ci xam-xam fexe koo téye ndax mooy li nga xamante ni li koy jariñ tayam ak ëllëgam kiy jàngale ba tey responsabilité bi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam joxoon ci moom mu ne yonente bi nee na inna allaha yuhibbu ida amala ahadukum amalan an yutqinahu dafa bëgg képp ku nekk boo demee ba jël responsabilité def liggéey bu mu mën a doon yemalewu ko sax ci jàngale kat liggéey bu mu mën a doon nga ni yow yaay ki ko mën di ko def nee na boo koy def nga sellal jox ko ak yi nga xamante ni moom la liggéey laaj ba mu mat sëkk ci waxtu ya teel a teew ndax sa cahier de charge buñ la nee huit heures nga war a xëy seize heures nga war a wàcc boo ñëwee huit heures et demi wala huit heures lu ca teg te baaluñu la ko xamal ni àq la booy lekk bu dee ay xale la nga tardé une heure de temps wala trente minutes jëlal trente minutes yi nga multiplier ko par nombre d'élèves yi nga yor kenn ku ci nekk jàppal ni amee nga ko trente minutes de retard loolu responsabilité yooyu noonu ki nga xamante ne dafay jàngale wala mu nekk ci liggéey bu mu mën a doon yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla da dafa bëgg ki nga xamante ni fu demee bay liggéey ni lii mën naa ko mu rafetal mu jox li nga xamante ne mooy liggéey boobu àqam mbokk yi du yem rek ci kenn ku nekk def la nga war a def ci wàllum jàng ak jàngale waaye kii wayjur bi dafa war saa su nekk suy xëy wala gont muy ñaanal njaboot bi ci yàlla teg leen ci yoonu njub yàlla tijji seenum xel ba lépp lu ñuy sàkku ci xam-xam yàlla defal leen ci lu doy tabarkeel looy doy tabarkeel ndongo li mën na koo sàkku ci ku mu mën a doon ci koy jàngal mooy nga xam ni kii di la jàngal yàllaa ko tànn nga jël cër bi mu yelloo nga delloo ko bu mat sëkk donte ki lay jàngal ci ab nasaraan kuy tox la wante yàlla def na ni ku am xam-xam la ku maîtriser li muy joxe la fexeel ba nga taataan la muy joxe ca xam-xam nga bàyyi koog tuxam ba mu mel ni garabu sump boo jàkkaarloo garabu sump bu ko xam xam ni ay déggi kese la wante yow da ngaa aajowoo sump si ni ngay fexee bay benn bennal sump si di ko jël ba dégg wi du la laal du la jam na nga fexe ba ki lay jàngal am yeneen i jikko yu bokkul ak jikko yu ñu gërëm nga taataan ci moom xam-xam ba comme ni ngay seppee lii di sump si bàyyi ko ay dëggal mbokk yi borom kër bu nekk dafay nekk masuuliya ci yow ngay ñaanal sa njaboot ndax ñaan googu bokk na ci ñaan ni borom bi subhanahu wa taala di nangu gërëm gi ngay gërëm sa njaboot bokk na ci li borom bi subhanahu wa taala di comptabiliser rida allah fi rida al walidain wa suqtullah fi suqtul walidain année scolaire bii ñu dëgmal yal na yàlla def jàppandal ci jàngalekat yi ba lépp lu ñu koy waajalee yàlla defal leen lu kawe seen jot ci wér defal leen lu kawe seen jot ci sàmmal leen seenum xel yàlla defal leen lu kawe seen jot ci fasaaxa ba lépp lu ñu bëgg a jàllale si njaboot gi mu jàll. njaboot gi yàlla yàlla defal leen wér ba ñu dugg ci année scolaire bi ak jàmm yàlla tijji seenum xel yombal leen seen ak yoon ba ñu egg yeneen yoon. ñi wajur it li ñuy sant ci njaboot bi teg leen ci fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhala allahu lahu tariqan ila aljanna képp ku jël sa njaboot teg leen ci yoonu sàkku xam-xam xamal ne teg nga leen ci yoon bi nga xamante ne mooy yoon bu jëm aljanna yàlla yàlla def wajur yi dund ba fekk njëriñu njaboot bi ñu ak seen coono rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله